ayu bëss rek des ci magaluk soxna jaara gi ñu amal fiki ci poroxan ndaje mo xam gouverneur bu kaolak and ko chef de service yi nekk ci région bi ak comité d'organisation bu magal poroxan bi nga xam Serigne bassir mbake poroxan moko jité ñu doon xolaat matuwaay yi nga xam jël nañ ko ci magaluk soxna jaara gi fuñ ci tollu gouverneur bu alal san Sall di ñëwaat ci mbolé ponk yi wax ñu nak liggéey bi li évaluer gum dal na suñu xel ndax gis na engagement bu nga xam ni service yi am nañu ko muy ci wàllu sécurité di police ak gendarmerie di yeneen force de défense et de sécurité yi lu ci mel ni eaux et forêt lu ci mel ni sapeur pompier service d'hygiène douane ñoom ñëpp taxaw nañu pour liggéey liggéey bu mucc ayib. gis na également taxawaay bi nga xam ni yeneen service technique yi taxaw nañ ko ma koy rafetlu muy AGEROUTE muy UCG muy région médicale. muy euh, wàllu ndox donc hydraulique SDE di wàllu Sénélec ci énergie euh, ci service état yépp yu nga xam ni daal soxla nañ leen ci liggéeyu màggal gi seen liggéey pour l'instant rafetlu nañ ko. ginnaaw waxtaan wi Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moo jiite commité d'organisation màggal gi moom bég na ci mboole matuwaay yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko te it xelam dal na. ginnaaw ndaje mi mbooleem chef de service yi dem nañ ziyaara ji Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir moom it mu bég ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci màggalu soxna jaara gi. waaw ah, day ci dara du si kon mel na ni ñu ko bëggee lépp defee ngeen ko ni. alhamdulilah ah, incha allah loolu rek la mën a defee. jërëjëf moom de ginnaaw def na itam jëpp. wallaay la mën la mën mu def ko la mën mu jéem ko. ndeysaan la mën mu jéem mënu si caa dolli yitte ji mën na sëkk yitte soxla. jërëjëf yitte ji mën na mbooleem chef de service yi jël nañu engagement ne daañu def luñ mën ak luñ mënul ci li nga xam ne moo jëm ci màggalug soxna jaare gi ngir lépp yemb ndax dana am sax ay éléments yoo xamante ni daañu ko yónnee ci fan yi ngir ñu mën a tàmbali seenub liggéey